asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci yonente bu tedd bi seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla sunu borom mu boole nu jéggal sunu xaq yi dox sunu diggante ak moom ak sunuy moroomi jaam di amaat mbégte delsiwaat ak yéen ci seen jotaay bii di ahlu xasida ngeen baaxoo ko am alxames bu jot fii ci seen sit internet Mouride info ahlu xasida di jotaay boo xam ne dañ koy ànd ak yéen di waxtaane lenn ci ngëneel yi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala defal na ko sëriñ bi ci xasida yi ngir ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ci góor góorgóorlu di ci jaamu yàlla ñu gën a xam yiw yi nga xam ne moom la xasida yi làmboon ndax xam ngeen sëriñ bi radiallahu anhu dafa waxoon ne wajaxal midaadi wa xilaami wal lisaan daaxiyatan lisil jamaali bi xisaan dafa ñaanoon suñ boroom ngir xasida yi di def ay daawa di woo nit ñi di leen jëmale ci yàlla sun boroom subhaanahu wa taala kon dafay jaadu jamono ju nekk rek ñuy waxtaanee ay ngëneelam ak yoon wi nga xam ne fi lañ war a mën a jaar ci ñoom ba li nga xamante ne làmboon nañ ko ci ay ngëneel ñu mën koo am tey nag ñu fas yéene leen a tànnal ñeenti tomb yoo xam ne dafa bokk ci xeeti jaam yàlla yu gën a màgg muy azikru wa shukru wal inaab wa salaatu ala nabi te mooy zikar ak sant yàlla ak tuub ci yàlla sun borom subhanahu wa taala ak julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tey moom lañ fas yéene ànd ak yéen te xasida yi fees dell ak ñeenti xeeti jaamu yàlla yooyu ma tudd ndax xam ngeen ne sëriñ bi dafa wax ne kitaabati zikrun wa shukrun wa sadaat allahu arshada xilaami wal midaat Sëriñ Tuubaa mbindam zikar la mooy tudd yàlla ak sant yàlla euh, ak njub tudd yàlla nag nekk loo xam ne alxuraanul karim day wax ne wala zikrullahi akbar mboolem xeeti jaamu yàlla yépp zikar mooy li ci gën a màgg moo tax sëñ bi wax ne amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridun yuksiru xad xultu zalika bi laa wala ubali bi zawil inkaari nee na zikar daal mooy li gën a ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam murid bi dana koy dana koy def te ku ma laaj wax jooju foo ci sukkandiku dama naan la rek demal ci لجيتو ولا تجادلو خبل ولا تجادلو أهل الكتاب ما يلسون برام دي وحتي القرآن ولا ذكر الله أكبر لو كانوا يعلمون سن برام نقو احنا تي القرآن الكريم أه وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون دلين تدي على البري أه ndax te ngeen texe texe nag mooy li nga xam ne moom la julli ñëpp di di tudd yàlla da koy joxe te sëñ Tuubaa nee na kitaabati zikrun sama xasida tudd yàlla la ba tey yàlla wax na ci alxuraanul karim ne wa zakirina allahu kasiran wa zakirat ahadallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla suñ boroom di ko tudd lu bëree bëri moo xam muy góor wala muy jigéen yàlla nee na ëllëg dig na leen fay ak njëggal fay bu màgg ak njéggal kon tudd yàlla ni ma ko waxee léegi rek bokk na ci xeeti jaamu yàlla yu gën a màgg yu gën a yomb te gaaw ci yóbbu nit ki ci boroomam te amul sikki sàkka ci ne jàng xasida tudd yàlla sunu borom la naka noonu it sant yàlla bu mu ne kitaabati zikrun wa shukrun la ca teg ba mu ñaan sunu borom itam daf ko waxoon ne wajjaxalhu yaa karimu xayra zikri fii abadin li wa xayra shukri yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma sama xasida yi ñu nekk ngeen gi tudd yàlla ngeen gi zikar ak ngeen gi sant yàlla moo tax def daan faral di wax lu bëri ne lahu shukuri bila kufuri laka shukuriya bila kufraani fu mu masaana andee zikar rek sant yàlla laf cey teg moo tax mu ne kitaabati zikrun sama mbindi sant yàlla la ak zikar sant nag nekk loo xam ne alxuraan wax na ne la in shakartum la azidannakum suñu borom nee na su ngeen ma sante danaa leen dolli jaam bi jamono ju nekk dafa war di sant yàlla suñu borom ci xéewal yi nga xam ne yàlla mi ngi ko koy defal ci jamono ju nekk nga xamne bokku na ci xewal yi nga xamne sun borom mo ñu ko defal moy bind gi ñu bind ñu nek ay ay doomi adama nek nonu mu def ñu ñu bokk ci xeetu yaronte bi sallallahu taala alayhi wa mi nga xamne moy khairul xayrul umma xewal sun borom yi bari na lol motax sun borom dem ba wax ci alxuraanu karim ne wa in ta'uddu ni'matallaahi laa tuhsuuhaa su ngeen don lim xewal yàlla yi kon di ngeen fi jóge ndax seen bari way waye sant yàlla ci ay xewalam day tax nit ki yàlla diko ko dolli ay xewal te yàlla wax na ci alxuraanu karim ne li fek jaam bi mo ngi sant yàlla euh kon mbëggalum sun borom du wàcc ci kawam maa yaf'alullaahu bi azaabikum in shakartum kon sant yàlla lu am solo la sëñ Tuubaa wax ne kitaabati zikrun wa shukrun kon képp koo xam ne jàng xasida yaa ngi zikar waaye yaa ngi sant yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne alxuraan wax na walakinna aksara la yashkurun ñu ëpp si nit ñi duñu sant yàlla waaye képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida na nga xam ne ci ñi alxuraan di wax ne lu ëpp ci nit ñi kat ñoom duñu sant yàlla suñu borom xam ngeen ne xasida yi sëñ itam dafa fees dell ak salawaatu ala nabi maanaam julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci jamono ju nekk nuñ koy faral di waxee sëñ bi juróom benn weer yu mujj ci at def ci daan ci la daan julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lahu salaati wa salaami min rajab li xatmi zil hijjati ni'mal muntajab da ko tàmbalee ci weeru rajab ba ci weeru zil hijja te mooy digg tabaski juróom benn weer yooyu sëñ bi def ko jagleloon di julli ci yonent bi sallallahu sallam moo tax mu ne ko wajjalhu yaa kari wajjal salaati haasihi ladayhi xayra salaatin suliyat alayhi yow yàlla sun borom maa ngi lay ñaan xasiida yi nga xam ne moom laay bind di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga defal ma ko ñu nekk ngeen gi julli mu nekk xeeti julli bi gën ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk itam xeeti sant yàlla bi bi bi bi gën ci yonent bi euh, ci sunu borom bi subhaanahu wa kon ki nga xam ne moo ngi jàng xasida moo ngi def azikru moo ngi sant moo ngi julli ci yonent bi sallallahu te yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne képp koo xamante ne julli nga ci moom benn yoon sun borom dana julli ci yow fukki yoon. waaye itam dana la jéggal euh, fukki ñaawteef yëkkatil la fukki fukki darajaat te yàlla dafa bind malaayka moo xam ne saa bu nit ki jullee ci sun borom rek malaayka moomu day jël julli gi dem ba ci yonante bi sallallahu alayhi wa ne ko diw doomu diw ak diw moo la moo julli ci yow ñaanal la ñaan gi loolu day nekk loo xamante ne li lu ñu lu ñu lu ñu nangu lay doon euh, nga xam ne xasida ak jullig Sëñ Tuubaa dafa wuute lool ak yenen khasaay yi nga xamantene ay khasaay du salawat lañ ndax serigne bi def ci da fay julli ci yonent bi ba ñaanalé ko lo xamantene ni sax da fay nit ki su won di julli ci yonent bi dana lott ci def lolu motax leg leg ngay faral di gis ci ay dam lu mel ni khidma da danga gis muy wax ya rabbana salli salatan taftahu qalbi biha fathan umuri yuslihu ma salamin na irin yunawiru xalbi wayatini bihi tabasuru yow yàlla suñu borom da nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli go xamne da nga ma ci euh ubil sama sama sama sama xol waye itam ànd ak sëlmal bu leer bo xamantene da nga ma ci leeralal sama xol lolu nek lo xamantene ni nit ki su toogee di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana lott ci def ay xeeti ñaan yi nga xamantene ne sëñ bi daf koy bolé ci mbindam nga xamantene sa bu nit ki de jàng khassida yoy yep da fay siwaat ci wat ci mom khassida itam lambo ay xeeti yiw yu rëy rëy rëy yoo xam ne sëriñ bi daan na wax ne yaa saa ili an amalin laa yanqati ilal jinaani xuz misaani wanta fi yow mi nga xam ne yaa may laaj jëf joo xam ne daal dangaa bëgg saabu boo ci nekkee ay yiwam duñu dog nee na la jàppal sama xasida yi kon su ko defee danga nga jëriñu ñeenteelu tomb bi nga xam ne moom lañ koy jeexale mooy tuub ci yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ndax ku ne xam na ne xasida yi dafa fees dell ak tuub ci yàlla sunu borom tuub nag bëri ay ngëneel yoo xam ne rot na ci alxuraanul karim bokk na ci ngëneel yooyu tuub euh, day tax nit ki suñ borom sopp ko suñ borom saa boo dee tuub ci moom rek da ngay nekk nit koo xam ne ku suñ borom bi subhaanahu wa taala sopp ngay doon yàlla wax na ne inna laaha yuhibbu tawaabiina euh, loolu alxuraan la ñaareel bi it tuub ci yàlla day tax nit ki euh, am ak ak texe te yaakaar naa ñun ñëpp ak texe rek moom li nga xamantene mom lañuy sàkku fi ci aduna te sun borom waxna ci alquran ne wa ila allah jamihan ayyuhal almu'minuna laallakum tuflihun te amul sik sak ci ne jàng xasida tub la tub ci yàlla ak jeglu ko ñettel bi moy tub ci yàlla day tax nit ki euh yàlla nangul ko ay jëfam waye itam jéggal ko ay ay ay ñaawteefam mooy la sunu borom di wax ci alquranul karim وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات waman taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila llaahi mataaban kon mbokk yi tuub ci yàlla lu am solo la te jàng xasida tuub la tuub tamit day tax nit ki am njéggalu sunu borom bi subhaanahu wa taala ak yërmandeem sunu borom wax na ci alquran ne wallazina amilu sayiat summa taabu min baxdiha wa amanu inna rabbaka min baxdiha la gafuurun rahimun ba tey bokk na ci ngëneeli tuub ak njëriñam mooy nit ki saa bu dee tuub ci yàlla day tax yàlla def koy wëlbatil ay ñaawteefam def ko ay ay ay xasanaat maanaam def lay wëlbati say ñaawteef defal la ay jëf yu rafet mooy li suñ borom di wax ci alquraanul karim ne wa man yafaal zalika yalqa asaaman yudaahaf lahu alazaba yowma alqiyamati wa yaxlud fihi muhaanan illa man taaba wa amana wa amila saalihan fa ulaayika yubaddilu llahu sayiaatihim Euh, xasanaat te ku ne xam na ne jàng xasida tuub ci yàlla la kon day mel ni saa boo dee jàng xasida moom yaa ngi def mboolem xeeti jaamu yàlla yooyu yëpp kon loolu bokk na ci ngëne li nga xamante ne ni xasida yi làmboo nañ ko sëriñ bi namit waxoon ne euh, ilaa tawalifi yaquudullaahu asraara laa ilaha illa allaahu nee na خسدا ميكر سون بروم بي سبحانه وتعالى ديف تي ديف سكرب لا اله الا الله سكرب لا اله الا الله تخم نين لا اله الا الله دي بات بو خامني بات بو ماغ لا دي بات بو خامني بات بو فور لا سي سون بروم بي سبحانه وتعالى غا خامني نيت كي سا بودي توب دي دوجو سي الاسلام بات بوبو لا نكاي نيك تودلو موي اشهد ان لا اله الا الله كون سكر يا تي بو كو بروم جيلي ديف كو خسدا يي لولا داي وني ماغا خسدا دل واخني الى توالي في يقود الله انوار لا اله الا الله mboolem xeeti leer yi nga xam ne euh, nekkoon na ci baat boobu nga xamante ne mooy laa ilaha illallah suñu boroom jël na ko defal ko ko ci xasaa xasaayidam loolu defe naa dafa nekk loo xam ne day wane màggaayu xasiida ilaa yi fi yaquudu laahu anwaara laa ilaha illallahu nga xamne ne ismullahi al azam di turu yàlla wi nga xamantene mo gëna gën itam serigne bi wax na ne secret ci nekkon itam wala ismullahi al azam ci bopam suñ borom jël nako defal ko serigne bi ci khasida ci xasaayadam yi moy limu wax ne li an xaara inda bahri ma rumtu fi rida walin xaara sirrul ism bin nazri wan nasri kon day melni khassida mom li ci nek ci ay xeeti njëriñ mom kenn xamul ni mu toll bismillah al azam nga xamanteni nit ku ko xam rek lépp lo ci ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala suñu borom def la koy defal da ngay faral di nek borom kun lépp lo ñaan rek suñu borom def la koy defal lool nak suko suñu borom jëlé defal ko Sëriñ touba ci khassida yi day wane ni lépp lo xamanteni nit ki mi ngi koy sàkku ci khassida yi rek man nako am fi ci aduna ak alaxira comme ni nga xamanteni non la sëriñ bi waxe won wax ne li ya'lam kullu man ta'allaqa bi أنني توجهت إلى الله تبارك وتعالى بالتوالي في تكون فيها منافع المسلمين والمسلمات أمين يا رب العالمين دفعني كيف كو خمني أجنغ تيمان سرين توبا نغا خمني جبلنا سما بروم بي سبحانه وتعالى كي تاليف أي خسيدة يو خمني دانا نيك تي بير تاليف يو نجيرينيال جوليت ني غور نيب اك نجيرينيال جوليت ني جيجن نيب في تي ادنا اك الاخره kon nag lépp loo xamante ni jullit bi mu ngi koy woo rek ci ay xeeti njëriñul àdduna ak alaxira sëñ Tuubaa nee na fàggul nañu ko defal ñu ko ci xasida yi njëriñ yooyu yëpp nag yàlla nañu ko suñu borom bi subhaanahu wa taala defal ñun ñëpp ba saa boo xamante ne nit ki moo ngi jàng xasida mu mën di am ci njëriñ yooyu yëpp kon xam naa mbokk yi euh, fii la ñuy yem ak yéen jox leen dig daje ba beneen alxames ak jàmm di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu nga ne li nga xamante ne ni xasaayid yi làmboo nañ ko ak secret yi te liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéeyal sëriñ bi itam serigne bi nangul ñuko ñun ñi nga xamne ñokay def tamit ñu làq ci ngeureumul serigne bi yéen ñi nga xamantene yéen ko top itam euh ngeen làq ci ngeureumul serigne Touba Cheikh Ahmadou ba khadim Rasoul wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh